donc di ñaan aussi les médias sénégalais yi moo xam télé yi moo xam radio ku ko mëna reprendre nga reprendre donc ñuy ñëw rek di wax ci situation réew mais nak euh, bu ñu la situation réew mi li ñu ci gëna intéressé muy actualité politique actuellement ñu bok ci le mouvement bu wax mouvement citoyen gëm sa bop té kiko ko jiite le président Bougane Gueye

waaye kooku nga xam ne mooy jiite mouvement bi le président Bougane Gueye lu ñu teg ci kawam rek ci kaw mouvement bi lañ ko teg ci kaw képp ku bokk ci mouvement bi te gëm sa bopp muy comportement boobu nga xam ne mooy delloo si ay valeur ci koy rafet yi jëf yu rafet yi wax yu sell yi si Sénégal ak nangu liggéey ak jëriñoo sa ñàq kon lu ñu teg ci kawam rek jàpp nañ ne ñun ñi ànd ak moom tamit loolu tegu na suñu kaw moo tax dañuy def vidéo bu gàtt rek pour dénoncer acharnement yi nga xam ne ñu ngi koy jël di ko teg ci kawam muy ñenn ci pouvoir bi ñenn ci opposition bi ak ñenn ñi nga xam ne gannaaw bi ñuy dem ci élection locale yi ñëwoon nañ ànd ak moom ne yoo ànd nawle la ñu ànd ak ci ngor mu jël ay moyens jël temps lépp jox leen ko ah yi ci jot a xew après élection yi gis ngeen ko ah moom nag kenn déggu ko mu wax effectivement ndax nag comme li mu wax rek buy taw kenn du fobeere buy taw kenn du fobeere boo fobeeree da nga koy yàq moo tax mu ngi ne teg jàpp njàmburam ñiy def nag ñooy génn di wax di dem ci télé yi di dem ci rajo yi peut-être ñoom ñoo am temps boobu mais ñun ñi nga nous avec ñu ngi ak le président Bougane Gueye Dany xam échéance nek suñu kanam ak importance ak enjeu yi ci nek je pense que le président Bougane Gueye amul temps dem ci radio yi ak télé yi di tontu ñoo xamantene ne nañ né ñi xeex Sénégal bo ba léegi muy def yenn xeetu transhumance ak yenn xeeti jaay sen ngor yi ñu ngi fi ba léegi ah mom nak liko dal ci ñoñu nattu la ndax nak mom lolu lay xeex moo tax yàlla nattoo ko ko boole ñoo ñu won ko donc loolu dina ko gën a dëgëral ci combat bi dina gën a dëggal boppam ci xeex bi mu xam ne li muy xeex pare combat boobu jeexagul dina ko permettre mu gën a utiwaat doole gën a dëgëraatal taxawaayam gën a ut ñoo xam ne ñoo ko gunge ci xeex bi te dina ko am incha allah voilà bu weesoo loolu aussi ak tuuma yi nga xam ne ñu ngi koy teg ci kawam boobu ba léegi.

waxul ko bëggul kenn benn adversaire benn naataangoo ci daral. ah heureusement gisuñ ay responsable politique wala ay chef de parti yuy taxaw di ko wax ñi ngay wax nag ay xale yu ndaw lañ amuñ lu ñu def nekk ci Facebook bi xam ngeen leen ñooy joxe fake news yi ñooy def montage yi ñooy saaga nit ñi ñooy def lu nekk kon je pense que loolu le président Bougane Gueye encore une fois amul temps di ci tontu. ñi nga xam ne nag ñoo bokkoon ci la grande coalition gëm sa bopp ba génn di wax lan moo tax ñu génn ñooñu le président bu Bougane Gueye Dany amul seen tontu ndax nag le président bu Bougane Gueye Dany li mu waroon def ci campagne yëpp def na ko jël na ay moyen mettre ko à leur disposition jël temps déplacé wu gis je pense que Sénégalais yi gis na tournée bu mu def fépp fu candidat am nekk le président Bougane Gueye dem ni dem na fa jàppale ko dooleel ko ci li mu mën moo tax tey mom tontom nekul na moy taxaw ci radio yi wala ci ci place publique yi fu nek mu taxaw di wax je pense na mom bu ko naron def sax ñun duñ ko nang li ci mëna am dal moy eh, le mouvement gëm sa bop ñu ngi continuer seen liggéey li ñu promettre sénégalais yi ñu ngi ci inshallah té ñu ngi ñaan yalla mu motalé ko le chien à bois nak la caravane passe kuy wër di wax ak kuy xey di liggéey mënu ñoo yem payor weer bu dee di leen wax rek yéen sénégalais encore une fois ngeen xamné ne toll manipulation bi bari na ci communication bi parce que ku nekk rek ya nga jéem a détourné xelu nit mais encore une fois nañu respecter choix sénégalais nañu respecter nit ñi té xamné yalla moy jël kuko neex def ko ci xolu kuko neex donc ñepp mënuñ and ak Bougane Gueye ñepp mënuñ and ak Ousmane Sonko. ñëpp mënuñ ànd ak Macky Sall ku nekk dina am ñoo xam ne ñoom la yàlla def ñu jox la nopp jox la bopp jël seen xol jox la ko ngir lan ngir Sénégal encore une fois maa ngi nuyu ñëpp di ziare ñëpp beneen yoon asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu Mamadou Mbow gëm sa bopp ci kat bi